accident yi bari na lool fii si diwaan Louga lu toll si ñetti bakkan ñoo rot si diggante démb ak tey l' bi si mujj nag ab dawalkatu jakarta moo ci ñàkk bakkanam gannaaw bu nu sukkandikoo si waay fekke yi damaa toog nii am maire bu bëgg a jàll ma ne ko maire kaay maire bi toog xale bi jàll ak jakarta bi waa ji ci kaw tekki buum gi bi booy bi jàll ak jakartaam bi booy bi jàll ak jakartaam weñuy wàcc booy bi pët pët yi jéem a def nii tur yooyu ma ngi fekk ko fa daanaka kaw ma du mooyu ah ñuy wax dee na ma déew man leen dee ba démb ci guddi sax fii au niveau de Louga am nañ fi malheureusement euh, benn accident mortel boo xamante ni si deux conducteurs de moto Jakarta yëpp finalement ils ont rendu là. lu mel tax na ba kuréel gii di ANASER daal di door ay contrôle lëkkaloo ci ak police bu Louga. nañoo contrôlé euh, cent vingt sept véhicules lañ jot a Euh, am nañ ci cent cinq véhicules yoo xamante ne si pour euh, diverses infractions mais infractions yoo xamante ne bari na lépp ci biir ak yoo xamante ni si quarante yoo xamante ni dafay nécessité immobilisation maanaam dañuy yóbbu commencé commissariat. ñoom ñi nag noppi nañ ngir wéyal lu ñu mel. di ko bamtu lu bari di ko amal chaque weer di def des opérations contrôle mixte pour au moins euh, atténuer. euh, atténuer les les les les les infractions parce que quand on ne sanctionne pas suñu sanctionné wul duñu duñu du infractions yi du wàññeeku. accident yi nag bari na lool jamono ji fii si diwaanu Louga rawatina moto jagataay ba tax ñu leen di ñaax rek ngir ñu mën a daw nànk aar seenu bopp waaye tamit aar askan wi.